alhamdulilah rabbil alamin bokki bokki jullit yëpp bokki taalibe yi bokk yi dellu si yow bu baax ñu ngi ñëpp di siyaare ñëpp di gën a siyaare ñëpp nag sunu mbokk mu baax ma te ci liggéey bu réeré muy alxuraan moo ngi koy siyaare ñëpp di ko daa julli ñëpp dat nañu waaye suñu borom kenn wërta am bet ndax suñu borom moom xam li muy def moo xam tax mu def moo tax moo xam na mu koy defee kon dana war a déglu rek di déglu ndigal ba mu toll ak ñun rek ñu toll fa kon mel na ne am mel na ne lu ñu waroon a am mbett lañu ci eh, ñàkk gi ñàkk suñu wettil bu baax wa eh, mën noo féete ci suñu fépp eh, toll fañ ko gënoon a soxlaa waaye nag yàlla moo xam ne muy def ginnaaw nag dafa noppalu ji moom fii moom liggéey rek a fi nekk liggéey rek moom mënut a noppale mënut a neex ab liggéey dong nga fi nekk leen nekkul kon nag eh, alhamdulilah bu demee ñu dénkoon ko eh, li jiitu ci liggéey bi muy liggéey bu rëy eh, suñu jafe ci coobareem loolu dañu daal daal delluwaat lépp ci suñu borom ndax moo moo xam moo sañ moo xam li muy waaye nag alhamdulilah rabbil alamin taxul woon nag te nu ñàkk yaakaar ndax xam nañ ne moom suñu borom jeexlewul dara te sëriñ bi mii mooy borom liggéey bi itam fa lu ma ta fàggu fàggu na ko lu ma ta fàggu fàggu na ko kon ci pàggute rek la nekk kon jaaxle mënu fi am loolu nag moo waral liggéey bi nga xam ne moom lañ dénkoon sëñ Maam Mor mu yor ko yor yu rafet na mu ko noppal na ci wettul na ci lépp nag ci ci lépp ci wàllu liggéey bi sàlla jëme si coowareem loolu ba mu amee itam dama jàpp ne dama dama daal di am dama di am yaqin ne foofee mu féete woon ci foofee mënu féete woon ci wàllu taxawaay bi moo tax ma daal di yónnee ca kilifa ga muy muy si àbbo eh, xamal ko ne ko liggéey baa ngoog eh, te itam soxla nañ ko ku taxaw a si maam moo taxawoon loolu it man koy waxee eh, amul ci benn jaaxle xamoon na ne daan ko am na ko bëggee hmm, loolu nag moo waral. defe ko nii mu ko defee liggéey ba mu yebal ko mu des si fi noonu dañu joxe woon ndigal sëñ Maamoor ñu jox ko ndigal sëñ xabaar mii loolu nag suñu xel dal na ci bu baax a baax a baax yaakaar naa ne boobu cër boobu moom yeyoo na ko ci wàll yëpp kon alhamdulilah rabbil alamin yàlla mooy def kenn deful nag yàlla mooy def coobaram xëy na euh, bi mu bi mu fi jëlelee sëñ Maamoor itam xëy na euh, rafetoon nañ jot bu baax ne dana am ku ko mën a moo moo moo ci agsi ginnaaw sëñ aboo xalaat na boppam ba ma sëñ sëñ xabaan loolu kon dañ daal doy dañ daal doy sëkk ci daal di koy jox joxaat jox ndigal ca liggéey boobee suñ maam ma féete woon nu ca yoroon na ko yoroon rafet loolu dañu daal di am xel mu daal mu sëkk yaakaar ju doy sëkk ci ñu dénkaat ko suñ xabaan féete nu fan suñu maamoon féete woon ci wàll yëpp nag ci ci ci wàll yëpp ci wàll yoon wi eh, xanaa boobu da ciy gën a diis waaye doy nu ci wàll ci ci wàll yoon wi yëpp kon nag moom sañ xabaan kon nag mu ngoog eh, digal laa ngoog ñun itam la ñuy sañu suñu warte yi mooy ànd ànd kon na xam ne euh, na ko daal ci sañ abo euh, ñëpp euh, no dañ ko ànd ak yow waaw ci biir activité incha allah te am ci xel mu dal na baax a baax a baax a ci xel mu daal bu baax am nañ boo xam ne sax xawul la jar ñaan waaye teewul nag daan daan teewul ñaan yaakaar naan ci mbaxu sëriñ bi moom mii dafa gàttoon la ak tawfeex sëriñ Tuubaa ci sa lépp nag biir ak bitti mm. mm. euh, loolu nag ci biir loolu wér ak euh, fan gudd ak waa ànd ak kàttan na jiitu ci tawfeex jooju euh, ba nga mën a nekk ci liggéey boobu te yàgg ci lool borom liggéey bi gàttu na ak ngërëmam lool rek mooy loolu rek mooy kaddu yi loolu mooy kaddu yi kon say xam ñu sant sa ñëpp.